non les renvois yi nga wax mhm. ñoom actuellement dañu nekk di def ay ay ay teg yoo xam ne pour protéger seen leader la wala seen seen client li ñuy def noonu yëpp c'est des stratégies yoo xam ne avocats yi xam nañ ko c'est que tey pour gën a préparer wu la quand on fait benn demande de mhm. parce que gis nañ ay anomalies ay conditions yoo xam ne tey procès bi mënuñu si mën a dem démb li tax ñu renvoyé aussi bien Ousmane Sonko que son son avocat. Mhm. Ciré Clédor était mal en point. Mhm. par rapport a tout ce qui s'est passé. et aussi am na avocat yu bees yoo xam ne ñëw nañ ci dossier bi donc ñoom aussi dinañ am temps xool dossier bi yooyu c'est des stratégies yoo xam ne aussi les avocats peuvent le mettre en place. pour gën a am temps de procédure la loo moo leen ko may dañ koy utiliser. c'est un peu pour gën a waajal seen bopp gën a préparer. am nañu preuve amuñu preuve loolu ñun mënuñu ko juger. Mhm. li koy juger mooy bu bés baa ñu def procès preuve dina génn bu preuve génn ñu xam ne amul preuve bu amee preuve dina ko génn et cetera